gaal ñun suñuy kilifa diine lañu am bu ñu baaxee ñoom lañu am bu ñu bonee ñoom lañu am ñun bu ñu baaxee ñoom lañu am ñun suñu bonee ñoom lañu am xanaa li jeexal nga wax boo bëggee màggal guddi Sayyidina Muhammad màggal kenn la ñuy laaj kenn kenn la ñuy laaj xayrul xadim waayu basak baara ma mi dem na Cheikh Matiu bàyyi Serigne Moustapha Moussa bàyyi maa ngi Serigne Moustapha Mbacke moom la ñuy laaj ni ko kan mooy Seydina Mouhamad mu ni mawliduhu muazzamun mubarakun muhtaramun ta'zimuhu yanhadimu ala dawi taqaddumi mawliduhu muazzamun xanaa kenn sopp gi Serigne Touba Mbacke mawliduhu muazzamun kii mooy maa ngi Serigne Moustapha Mbacke dafa mel ni léegi ma ñëw na bu bu micro bi gënee baax tuuti dina ma arrangé tamit. daa seetlu màggal guddi Seydina Muhammad war na. lii jumlatul ihtiraa xam nga ni lii keneen ku dul duhu bi sanati bu la neexee ne taasimuhu bi sinnati yaquduna lil jannati bi isyaadu minnati li muxlisin muazzami taasimuhu bi sinnati taasimuhu bi sinnati وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر العظيم ابو سيدنا محمد كان نينا خم فبولو كي خم لواتي وخدقة نينا يا لول مغفرة خولم مجد لول مغفرة وكل أعلم يبتدخل توبا فعلمو جاي خم لما جبتو الله jàngi Seydina Muhammad ci huit mois lañ ko ëmb ñii ni déedéet ci six mois lañ ko ñii ni déedéet ci sept mois lañ ko ëmb ñii ni déedéet ci neuf mois lañ ko ëmb sama Seydi El Hadji Malick di régler problème mu kaa yi ci laylatul aruba nee na Seydina Muhammad mi ngi tuxoo ci diggu baayam ci weeru rajab laylatul aruba guddi alxames xal la la wàccee ak turu Seydina Muhammad fii rajo ci weeru rajab خلاص رجب شعبان رمضان شوال ذو القعده ذو الحجه محرم صفر ربيع الاول مي نفوا تلي ام سيدنا محمد من حل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفيل تذكر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci guddi gi di leen ndokkeel ci weer wi fa tabaarakallaahu ñooy jiital ci nuyoo bi suñu délégué de quartier muy Alhaji Demb Fall ak notable yi yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu imaam yi ak bilaal yi di nuyu daairatul munawiru sudur bu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu di nuyu daaira متحابين في الله دي نوي سخنا يي ماك اك داو غور اك جيجين ديفنا نيو في تيو دي لين واخ السلام عليكم ايضا ورحمه الله وبركاته واخ دك يالا تاي دي نيو ام بكتي ndax لم في دجل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن خمنا يالا دكو يوني منك رحمة محدات نكادو بو خمنا يرمدي يالا نكو يوني منك كادو فتبارك الله يالا نكو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يلا نينا يوني وما يوني صلى الله عليه وسلم لدول منك يرمني يرمني لك بو خمنا للعالمين دفا موتالة بيبخير تبارك الله يونس صلى الله عليه وسلم واخنا نكو ليغي تي بيت بيغا خامني عفوا ماغي نويو استاذ مي دون واخ ليغي استاذنا وابننا استاذ سني استاذ لا باي سني دوم لا دوم مور تيا فتبارك الله سني خريط لا سني سوبيل waykat bi def moo ne iqtada adiyun bil karam iqtada adi adiyun abaahu bil karam fa ma dal su ma fàttewul bay tamit ñu ne adiyu de roy na baayam ci tedd nga waaye ku roy sa baay ci tedd nga nag tooñoo loolu mooy waaye ku xam Mor Thiam su amee doom buy waxtaane nii fa tabarakallahu allahuma la adur wala udarro tabarakallahu dañ ci sant yàlla bu baax léegi nag waykat yi wax ne law la nabiyu rasulullahi lax kurimu gis nga yonent yi yi fi jiitu woon yépp kenn ku ci nekk ba nga woowee sa say ci lislaam walla ci tawxiid ñu bañ da bind rapport du dëgg bind nga rapport yàlla ne ñii ay bandi lañu naruñu jub kon bu kenn des na ñëpp dee yunus def na ko nuux def na ko saalix def na ko huud def na ko shuaybu def na mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee waa Makka rejeté ko mu dem Taayif ñu rejeté ko boole ko ay xaj ak ay ay dox ñii di yuuxu ñii di sëllëx suuf boole ko ay xaj xaj Malick nee laa pamina sufaha ma la afuhu bii wallaay daje nag dox yi def nañ ko loo xam ne man xaj Malick rus naa ko tudd boobu mu ngi ànd ak Zeyd ibn Xaaris bi muy dellu ci yoon bi bi muy dellu ci ci yoon bi benn malaaka boo xam ne moom la ñu délégué doj yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jazakallahu xayran yaa ibnana ma sha allah farihna jiddan ñu ne ko yàllaa ñu yónni nee na su la neexee léegi mu jël ak sa bay bii dafa nekk ci Makka bi nekk ci Taayif mu dajale leen léegi ëmb ko ci seen kaw ñu dee ñoom ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee leen pourquoi ah pourquoi yàlla di def loolu wala malaaka yi di def loolu ñu ne ndax lii la def yonent bi nee leen نينا يالا اغفر لقومي لانهم لا يعلمون يالنا يالا جيجل سماي نيت دنج ما خامو رك ديسا كودور يونس صلى الله عليه وسلم سو جيكو سي نون ها لو با سما خول خول دفا سيت sama xol dafa set hakaza wa illa ha ustaz hakaza wa illa ha rek la nii rek su dul lii su dul nii du leneen ndax moo mënuñu bokk diine lislaam bokk réew mi tariqa yi Hajj bokk ak mu bokk ak Serigne Touba loolu li maam Abdou doon wax ñoom lu lu ci suñu yoon sax ñoom ah su ko defee ñun ñuy wut par par la ñuy par par la yàlla dimbali na nit dimbali na ñu ñun fii ci Antoine wax dëgg yàlla xamuñ ko su murit yi aaye tijaan yëpp dañ fay dem. su tijaan yi aaye murid yi dañuy dem ñun ñoo bokk ndey bokk baay lislaam nag loolu la waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu yéen mooy ci gi ngeen bañ a teqale nga xam ne tey ñi nekk ba Europe ñi ngi am dund bi en direct parce que mbokk mi di Mor Niang Amina Dieng présidente fondation xale yu judd ci ginnaa mbay section diaspora moo ko fi yebal pour rek mu am burdu bi comme niñ koy dundee fi mu dundee ko foofu moo ko fi yebal mu ñëw fii mi ngi yor euh, seen bi ñuy wax ak Xalifa TV kon sëñ Mor yal yàlla guddal fan bu baax wéral cër bu baax te fi ngeen bëgg a egg ci seen liggéey yàlla yóbbu leen ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yaakaar naa loolu moom waa koñ xam nañ ko Youssou Niang ak ñi ko ñëpp ñoom tamit ñi koy couvrir en direct waaw ñu ngi koy ñu ngi koy jël en direct ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax waaye di gërëm tamit famille góor gi Ablaye Mbaye góor ak jigéen mag ak ndaw àndandoo nañ ak seen kilifa su ma nee seen kilifa Madiack Mbaye mi ngi di toog. su ko defee yëkkati nañ seen am am yëpp def ko ci biir waaw soo waxee loolu nag yaakaar naa euh, dañuy gërëm euh, magasin parce que dafa jàppoon pour def burdu ñu ni ko daayira bi day burdu mu bàyyi burdu boobu ñëw ngir burdu daayira dugal ci loxoom bu baax nag wax dëgg yàlla dañ koy sant bu baax te du gërëm waaye di sant nag daayira bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyi ñu kenn waaw su ko defee ñu xam ni rek euh, ñett ñoo xam ni dañ du ñàkk ñu tudd leen donte bokkuñu ko waaye nag mënul ñàkk suñu sœur bu ñuy wax abimaane dëkk fii am na taxawaay bu rëy ci daal na daal man ñi maa koy gàddu la waxoon def na ko yëkkati na xaalis bu bëri jox ko daayira pour lan gàmmu Tiwaawan ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam te wéral ceram bu baax yokk ko ba mu yëg ko ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa waaye di gërëm tamit suñu frère bu ñuy wax Ahmed Dramé di responsable politique di doom si ay di ñoom moom tamit wax dëgg yàlla am na ci taxawaay bu rëy rëy rëy waaw ku ñuy wax Sidi Baas tamit di doom ci Yoro Baas moom tamit ñëw na fi ci ngoon def fi teraanga bu rëy rëy ñun ñëpp xam naa après dañ ko doon tënk pour jox Demba parce que dañuy bañ a fàtte ak euh, ku ñuy wax Touré Touré euh, monsieur Touré nga xam ne suñu mbokk taalibe la chaque àjjuma ñun ñooy defandoo xadara fii moom tamit def na ci teraanga bu am solo Galaye Diagne ak Pape Dramé Pape Dramé di leen dokkal kita ci tana teewaay ndax fépp boo xamante ne jataay la boo xam ne nii day fay kañ afdalul sayyidina muhammad dafay wér na wéetu ñu ñeneen ñu dul ñëw sax dinañ ko tey kon nag kon ñu ngi gërëm bu baax di gërëm tamit mu munawiru fi sudur di leen ñaanal yàlla waane tamit di gërëm ci daayiratul murtasidin wal murtasidaat xëy na teewul mais seen président ñu wër na fi parce que jotaay bi tamit day fekk tamit ñoom itamit dañuy taxawee lu mel ni ne durant toutes les journées waaw ki nga xamante ni bi lee moom la ñu tudde des ma leen di ñaan bala ma daaneel rek ci mbooloo bi ku nekk na jàng faatihatul kitaab ak ñett ci peru salaatu ala nabi ñu yéene ko suñu bàyyi Ablaye Bay ak mbooleen ñu ko jiit ak ñu ko mos a. bismillah. xëy na bi mu demee ak léegi yàggul puisque 2009 la daanaka rek lu ma ciy wax rek ñëpp ko xamandoo ak man xëy na kay dafa am ñoo xam ne rek dama leen ko jëkk a xam. puisque yàlla dogal na moo moo moo fi jëkk nekk imaam bi mu fi ñëwee léegi mën naa wax ne peut-être dans les cinquante huit cinquante neuf jàpp soixante mais man loolu sax dafa ma boole woon ak moom suma maam Medoune Diop bi doon denc suma maam bu jigéen jigéen Njaay moo ko jëkk may soxla katif katif Diop booba temps góor gi dëkk bu li en boobu mu ngi nekkoon fii ci Yaraax ci gaar ba yàlla dogal bi mu ñëwee fii booba jàkk ji mu ngi nekkoon fii kër biir faale mën naa wax sax ne jiite na fii jii jiite nay en trois te dëkkagul en trois lu ci gën a bari amoon na ko ko daan wéttali bàyyi Jibril Jéey waaye ña xam ne daf fi daan faral di ñëw góor bu xam-xam góor bu mokkal la de temps en temps dafa daal faral di ñëw am am kii dellu depuis lool nguur gi Ablaye Mbaye moom moo jiite en trois ci nañ ko ci moom su ko defee wax dëgg yàlla euh, suñu xol seet la buy ñu ngi sant mbokk yëpp mënuñu nekkaat fii di tudd tur waaye nag euh, imaam ni nga ko waxee sànq nuyu nga ah ima yi ci nekk yëpp. waaye ñu tudd ci ñaar rek imam Adama Cissé ak Thierno Xame waaw ñu leen di ziar bu baax suñu doyen Mor Dieng ñu koy ziar bu baax a baax oustaz Sène ñu koy ziar bu baax parce que tamit ñun ñëpp ñoo bokk xadara bi waaye tamit ñuy ziar suñu doomu baay suñu wóllëre Abdoulahad Dieng wax dëgg yàlla dañ ko gisul woon nag dafa ñëw rek sëgg ci biir mais suñu ko gisoon lu mu gàtt gàtt dinañu firil donte ñaari di boy sëñ bi la dinañuy ko firil Abdoulahad ñu ngi lay ziar bu baax a baax yàlla yàlla yàggal taxawaay bu baax a baax encore une fois ñuy gërëmaat daayira mu naweru sudur di gën a fasantewaat ak ñoom kóllëre di wax ni bu ñu deful lii rek danañ tooñ parce que mag ñi ñu fi fekkoon kenn ku ci nekk bokkoo woon ak sa morom tarixa bu ngeen nekk waaye nag amul ñëpp ay relation yu rafet ba ay amante ay tuddante ay doom te loolu na naa nekkin bu rafet rek moo ko waral su ko defee di rafetlu encore une fois bourde euh, populaire bu daayira bi organisé ginnaaw loolu damay ñëw rek remercier euh, nit yoo xamante jàpp nañu ci bis bi parce que bu nekkoon ñoom euh, bis bi du mel nii ginnaaw loolu damay njëkkee rek ku mel ni Birane Mbaye xamante papa muy imam Abdoulaye Mbaye moom lañu tuddee moom moom lañu ko rendre ci guddi populaire bi yàlla dogal na nag ñun fekkeewuñu ay jamono daanaka mais dégg nañ ci moom loo xamante daal lu daal suñu xel la ginnaaw loolu ñu nuyu di gërëm encore une fois El Hadj Yoro mu nekk mag boo xamante franchement parlé mu jiitu woon le conseil de quartier en même temps toujours dañ koy gis ci jàkk bi mu nekk ci xadara bi ginnaaw loolu dañuy encore une fois remercier Serigne Sall mu nekk koo xamante franchement parlé nekkoon na le trésorier de l'ASC di jàpp ci lépp loo xam ne koñ bi da ciy da ciy dugg ñu remercier encore Alima su mel ni Youssou Ndiaye ah, ak Mariétu Touré Ami Sagna Ahmed Diallo Nogay Mbaye Bintu Dieng allahumma ya'mal asfarakum wa satarakum amin wa la yu'akhidu darura amin wa la yu'akhidu sutra amin wa la azim ala ufu ma astaqtu amin amin tarku sayyid al-khalid tarku sayyid al-khalid wa la yu'akhidu al-ajra